tànn ay député tànn député élection bari na fitna mais ñuy ñaan mbokk yi ñuy tànn ñu seet ñen la tànn nga tànn koo xamee ne mun na taxaw jël intérêt population bi jiital ko ci intérêt kooku lañu ñu war a tànn tànn koo xamee ne tamit mun na ko àttan na ko ndax soo tànnee koo xamee ne munu ko àttanu ko walla Euh, maslaham la fay demee du dem pour maslaha population bi kooku yow mi tànn war nga yàlla war nga yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man istaamala rajulan an isabatin wa fihim man huwa arda allahu min faqad xaana allahu wa rasuluhu almuminin war nga yàlla war nga yonent bi war nga jullit yi war nga population bi kon nag bul tànn rek kii sama frère la wala kii sama mag la wala kii sama xarit la déedéet tànnal koo xamee ni moo gën a mun yenu ñi ñuy tànn ñi tamit ñu xam ne responsabilité bu rëy la ndax ñoom ñoo taxaw ne ma ñun dey dinañ taxaw fii defendre seen cause su demee nag ba nga tànn leen ba pare ñu bañ a def li ñu waroon li ñu waroon def li ñoom tam war nañu te nañu xam ne dañ taxaw si kanamu yàlla dañ taxaw si kanamu yonent bi ñu laaj leen responsabilité boobu ñu yonu woon kon ñu xam ne ñu ngi ci jëm si moom lu ñëw dina jàll lu ñëw day weesu suñ ko muñee àttan ko yenu ko dina weesu mais ñu bañ a indi fitna suñu indee fitna dinañ yàq suñu réew dinañ yàqal ñeneen ñoo xamee ne bokkuñu ci woon ñi indi loo xamee ne warul ndax suñu yàqee suñu réew amuñu feneen fuñ jëm fii rek lañu am kon nag ñuy ñaax ñépp ñu indi jàmm woote jàmm taxaw ci jàmm jàmm mooy lépp soo gisee ñu toog fii di julli nekk suñu xel yu dal jàmm moo am su jàmm amul dara du am kon nag ñu tegee lépp ci yoon teg ko si jàmm ku ñu tànn ñu xam ne moom la ñu tànn ni ko tubaab yi ñoom ñoo ñu indil élection ku ñu gañe yëpp dafay jël téléphone am woo ku gañe ki ne ku gañe naa la gañe nga ma nangu naa loolu la ñu war a def bañ indi fitna ne sàcc am na walla jaxasa am na loolu warul kon nag ñu góor góorlu